asalaamaaleykum mbokki internet yi nga xam yéen ngi safoo Kéwoulo te nag ñu ñëwoon amal waxtaan ak ki nga xamante ni moo di Serigne Abdou Lahad borom Kéemaan Serigne Abdou Lahad borom Kéemaan ku ko dégg xam ko ci médecine traditionnelle ñaan ak li nga xamante ni moo jëm lépp ci loo xam li si xaar la ñu bàyyi ko mu nuyoo bu baax a baax Serigne Abdou Lahad ñu ngi lay nuyu bu baax a baax. auzu billahi samiin alim laa xawla wala quwata illa billahi al ali al azim xasbuna allahu wa niamal wakilu niamal mawla wa niamal nasir mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen siyaare di am mbégte bu baax ak kontante ñu ñaan yàlla sunu borom subhanahu wa taala lépp loo xam ne wax nañ ko fi rek yàlla na lépp nekk njariñ dara ji yonent bi sallallahu alayhi wa sallam barke borom Tuubaa di leen siyaar yéen itam mbokki kéwloo bu baax a baax baax di leen dalal jàmm bu baax ko bismillah ci mbégte boobu ak kontaan ne ci la ñuy ci la ñuy tàmbalee suñu suñu suñu waxtaan ak yow euh, ñu jëm ci wàllu médecine traditionnelle ci wàllu paj ci wàll loo xamante ni ci wér-gu-yaram doomu aadama waaye loo xamante ni tamit day yokk doomu aadama ñu bëggoon a xam sëriñ Abdou Lahad lépp loo xamante ni dafa jëm ci wàllu seet ci wàllu listixaar ndax danga koy danga koy def. waaw xam nga euh, laa tadxulu buyuutan xayra buyuutikum maanaam waroo waroo dugg ci benn néeg te te nekkul ne dañ ne la sil boroom néeg bi ne la dugal wala itam ku fa sës ci moom ne la dugal dafa tolloon nag doomu aadama lépp lu muy gëstu wala lépp lu mën doon ci àdduna la ci njëkk mooy dafa war a tegtalu tegtalu bi nag mooy xaar listixaar xaar moom fi lañ ko fekk yonent bi sallallahu alayhi daf ko digle mooy tegtalu ci nit ki lépp lu muy def lu muy dugg ak lu mën doon mu tegtalu ca ba xam lan la ndax bariyaana nit ñoo xam ne lañu dugg la tax ñu am ci jafe-jafe mooy dañoo dugg rek te seetu seetu seetuñu ko moo xam lu ma doon rek moo xam muy jigéen moo xam muy kër moo xam muy oto moo xam muy fas moo xam muy place moo xam moo xam moo xam moo xam ba ci yoonu tukki booy dem war a tegtalu door door door door a seetlu ba xam nga ne ñàkk seetlu tax na gàllankoor yi nga gis yépp ñàkk a seetlu moo ko waral ndax saa boo seetloo ba ñu tegtal la ci yoon da ngay dem jàll ci yoon bi te doo am benn gàllankoor waaye saaboo boo jékki rek dugg ci dara te seetoo ko lu la ci ma dal man la cee dal mbaa xam nga ne fi ne am na ci ñoo xam ne sax tabax am nañ kër tabax kër gi ba mu yegg ñu dugg fa rek faatu am ñoo xam ne takk nañu soxna deux semaine trois semaines daal di faatu am ñoo xam ne dem nañu ba alxeyri jib wala ñu dem ba ci waaju dugg daal di faatu gis nga bari na deeyu gaaw yi ngay gis nii yépp ak gàllankoor yu bari yi ak ak jafe-jafe yu bari yi loolu rek moo ko sabab xam am na ci ñoo xam ne takk nañ soxna avant soxna si sëy suñu dugg kaso te pourtant kooku dugg kaso bi moo gën ci moom dugguloon kaso day dugg day dugg bàmmeel kon seet dafa doon loo xam ne lépp lu nit di dugg ci àdduna da koy seet man du ma ñaanal kenn dara seetlu ma ko lépp loo ñëw sant ma ko ne ma lii laa bëggoon sëñ Abdou Lahad bala dama naan la li ma bala maa def dara dama lépp nag du ñu dugg ci dara te seetuñu ko ndax seet day tegtalu day bunt boo xam ne daf lay wan bu dee lu baax la nga dugg bu dee bu dee safaan kasaalika bu dee sarax war ñu ne sarax moo ci war bu ci sarax warul ñu ne sarax waru ca waaye nit moom li bon mooy làmbatu làmbatu na mën ngaa daj man ngaa bañ a daj kon nag seet dafa gën lépp lu waay def lépp lu ma doon rek bala nga cee dugg na nga ko yërlu ba pare te nun nag suñu seet nag yàlla def nu ci suturaal ba euh, amut lu ñu munta gis ci seet ndax dañ koo doon nag ba pare nag dolliwaat gëstuwaat ci yeneen yëf yoo xam ne si ne ke ñeneen lañ ko jëlee ñu bokkut ak euh, suñu wajur ndax dañu dañuy dafa doon yoo xam ne dañu dañu dañu yàgg ak mag te am na secret yoo xam ne ci mag mu baax laa ko jële te lam ma jàngale dey ma ko yàlla mu ngi suturaal ba tey yow dama lay wax loo xam ne sax dangay jàpp ne lii ndax du nit moo ñëw ci man nett li ma ko waaw loolu lépp nag dañ koy sant suñu borom rek ak na nangoo nangoo nangoo gëstu ak ak wayjur yu baax itam ndax itam bu ñu fekkoon suñu wayjur ñu nekk ci leneen ne ministre ministre la ñuy doon bu ñu fekkoon suñu wayjur nekk ci di def euh, tailleur tailleur la ñuy doon bu ñu fekkoon suñu wayjur leen lii la ñu nàmpatal nag la ñu nàmpatal nag ci lañ fas yéenee dund di ci teral ay nit di ci di ci di ay nit ba keroog ñu koy fekk ñaan yàlla suñu borom bi yërëm ko xaari ko àjjana ci biir li nga li nga donn ni nga ko waxee ba pare defaat ci ay gëstu ginnaaw boo seetalee nit di nga ko jox loo xamante ni garab la wala lu muy sangoo wala lu muy takk xam nga euh, doomu aadama day ñëw sant leen dama bëggoon ku ma gëstul sama ay yëf ginnaaw bi nga ko xoolee ba noppi nag lépp lu ci jaadu danga naan ko lii ak lii ak lii moo ci jaadu su fekkee lu muy takk la kasaalika am na fi su fekkee lu mu war a sangoo la kasaalika am na fi su fekkee lu mu war a naan la am na fi su fekkee lu mu war a sarax itam nga ne ko sarax sàngam ngay génnee ndax am na ñoo xam ne sarax rek mooy mooy seen mbir soo leen defalee gëstu suñu saraxee rek seen mbir yëpp baax gis nga ni nit di demee ci hôpital jékki-jékki yaramam diis wala dara dellu ko mu dem ci médecin ne ko xool ma sama yaram noonu la doomu aadama war a demee di gëstu ay yëfam di ko xool ne xoolal ma sama yaram ba xam xoolal ma sama avenir ba xam xoolal ma sama place ba xam xoolal ma sama liggéeyukaay ba xam kasaalika kasaalika kasaalika waaye lu ca war rek danañ la teel a defaral loo xam ne soo ko jëfandikoo incha allah rabbi ci kàttanu yàlla da nga gis ne yow de am na lu doon ñëw ci sa kanam waaye loo xam ne falang nañ ko bu dee nag da war a def la war a defal nga sangu ñu ne la lii kaay sangoo ko ndax ñu ne am ay sangat yoo xam ne képp koo xam ne dox nga ba ñëw ci nun danañ la dugal béréb boo xam ne boo fa génnee lépp lu nekkoon ci yow ci kàttanu yàlla dana jeex loolu mu am nañ ko sangat yu wér yoo xam ne lu nekk ci doomu adama ci lu koy yàqal lu moo xam moo cat moo xam moo liggéey lu mu xam lu xam lu ma doon ñi ma xam moom xam nañ ko ci man duñu ko defal kenn muy échec waaw loolu moom yàlla suturaal nañ ci ndax suñu loxo dafa am barke luñ ci ñaanal nit mu am te rus la ñaan ñaan ko dul nangu wallahi ci kaw loolu noonu moo waral tey jii sëñ Abdou Lahad ñu dàkkantale la turu Kéemaan boobu noonu euh, fu mu jugee. kéemaan ji moom yàlla def na suturaal ñu def lu kéemaane maanaam dañuy ñaan toujours loo xam ne lu kéemaane la xam nga ñaan euh, amut lu munta nekk kaw suuf kaw suuf xamuma wala mënuma wala gisuma moo fi nekk waaye maa ngi lay waatal ci yàlla ne kaw suuf amu fi lu munta ne lenn rek moo fi am loo xam ne kenn mënu ko muy doon borom bi subhanahu wa taala waaye yiw wu ne karaama bu ne mënees na ko def ci kaw suuf jëf yi ñu def ci wàllu ñaan nag gaaw gi mu gaaw ak kéem kéemaane gi mu kéemaane moo waral ñu ah sëñ bi yow sëñ mbir kéemaane ah sëñ bi da ngaa kéemaane loolu na moo waral sëñ Abdou Lahad kéemaan ji waaw ah, kéemaan moom yàgg naa koo dégg ñu bari kéemaan la ñuy wax waaw loolu nag dañ ko sante suñu borom ak suñu ay wayjur nag waaw ndax ñaan moom duñ ci gone li ma la wax léegi ñun moom lii ñu def dañ ko donn man ci loo xam ne nag suñu ay mag suñu ay baay mënuñ ko ci waaw ndax duñ duñ ci gone kenn te luñ ci bëgg def def ko ci kàttanu yàlla ci ci ñaan amu ci lu ñu mënul lu kenn mun te def ne lii moom kenn mënu koo def ci wàllu ñaan yàlla seet na bu ñu toogee suñu kurus du mat une heure de temps li ñu ñaan suñu borom subhanahu wa taala mayuñu ko waaw ndax du am cote nag dañu am cote yoo xam ne boo bëggee ñaan fa ngay jaar sa borom pour sa borom may la <laughs> loolu nag am nañ ko wax dëgg yàlla. macha allah ba tey ba tey ci loolu ñu nekk ci jamono joo xamante ni ku ne xam na ni wàllu tëli. ci ngóor dafa nekk dafa nekk centre d'actualité maanaam góor ñu bëri tey jii nii ñoo ngi ñoo ngi ñoo ngi tàggalikook seen soxna eh, amaana ñàkk ñàkk a ñàkk ñàkk am ngóor googu moo ko waral ba ñu bëri di daw di dem ci ñi nga xamante nii ay ay fajkat lan ci loolu noonu ñu lay xamal ndax am nga ci am nga ci lenn loo xamante ni ay garab la wala loo xam ñaan yooyu joxe yoo xam képp ku ko jëfandikoo rek sa ngóor dina dina dina ñëwaat ci kàttu. xam nga wolof dafa léeb dafa léeb ne tungu ni du teew ñu koy nataal tungu ni teew ñuy nataal te wedd gis def ci bokkul am na loo xam ne yaa ko tegal sa bopp sa bët fii kon ci ci ci ci béréb bi man fi may liggéeyee lay resevoir képp kuy ñëw ku ma soxla itam fi nga may fekk dewuma ci saal fenn boo may defal interview sama biir cabinet nga may fekk fi ma fi ma nekk nga may fekk kon donc làqatuwuñu dara waaye maa ngi lay xamal ne jamono biñ toll nii phénomène bi ëpp ci sëriñ si mooy man dama am problème mu néew doole ci wàllu kàttan wala dama am problème mu awara bu gàtt te sunu borom subhaanahu wa taala daf ñu dimbali nag ndax euh, am na ci loo xam ne dañ koo donn nag ci wàllu loo xam ne secret yoo xam ne suñu wayjur moo nu ko jox mu jëm ci wàllu ki nga xam ne dafa am ak néew doole ci wàllu kàttan loo koy dimbilee loolu nag bi ñu ko joxee ci lañu jóg nag gëstu jiwaat gën a dolliku gën a dolliku googu nag am nañ ci dolliku goo xam ne dañ ko sante sunu borom subhanahu wa laa bu baax a baax baax ndax dañoo tegtal rek ñu jóg dox topp yoon wi ba dem nag ndekete gis nañ yeneen ak yeneen ak yeneen yi ci yoon wi yoo xam ne euh, wuute na ak yi nga xam ne moom lañ ñu moom lañ ñu moom lañ ñu euh, tegtaloon waaye maa ngi lay xamal ne am na ci nit ñi ñoo xam ne bu ma gisee tey ma toog jàpp nañ ne lu ma dama koy faj lu dul néew kàttan rek damay wax la ma neex ndax lan ndax ñi ëpp ci nit ñi moom lañ ma xame loolu moom dañu koy def gis ko bari na nit ñoo xam ne ci wàllu néew doole nee naa la koo xam ne dafa am néew doole ci wàllu kàttan euh, te li ko dal judduwaale ko dama koy faj gis nga bu demoon ba am euh, soixante-dix ans te mënatul dara yàlla seede na ko ci ba kàttanam ak mbaaxam su ñu ko joxee li ñu koy jox su ko naanee ñetti fan dana yëg boppam ñetti fan dana yëg boppam ci kàttanu yàlla bu boobaa nag du ko bàyyi. dafay continuer traitement ndax man yi ma ci joxe toujours traitement la. traitement la ndax mën nga ñëwoon yenn ci ci ci ci produit yooyu noonu yi ngay joxe. waaw produit yi moom bii bii ci la bokk alma alma kii bale non bii ci wàllu euh, bii bii day dox ci wàllu koo xam ne awraam dafa gàtt. waaw bii ñaar yi mooy ànd maanaam bii ñaari yi koo xam ne awraam dafa gàtt te xamut lu ko gàttal awra bu gàtt nag. Euh, dañ ci taxaw ñu def ci benn taxaw seetlu tuuti hmm. euh, donc li koy sabab mooy koo xam ne dafay gént lu bari di sëy soit mu ne koo xam ne dafay mballu loolu nag daf lay jañse ngay def loo xam ne ndax awra du yax sidit la sidit nag tey jii mën nga koo xëcc mu topp la fi na awra am na ñoo xam ne awra bu gàtt lañu yor waaye tey bu ñu ko téyee léegi bu ñu xëccee nga gis mu nga mu mel ne luy luy luy yokkiku léegi nag yéen yàlla bindee ni leen wutalee am na ñoo xam ne seen seen mbir dafa yeex am ñoo xam ne seen mbir dafa gaaw toujours man lépp lu wax dama am fu ma koy teg ñi ko gaawle sept jours la ñuy jëfandikoo gis résultat bu dee koo xam ne nag sa mbir dafa dëgër da nga ko jëfandikoo lu mat 15 jours jàpp un mois waaye li ñu lay jox nga laal ci frotté bi laal liquide bii yàlla seet na ne soo ko jëfandikoo incha allah rabbi ci kàttanu yàlla moom ni mu demee sax dafa yéeme moo xam ngay góor moo xam ngay jigéen saa boo ko jëfandikoo da nga gis ndam loo xam ne dana la bett bu fekkee nag kii rek ba lañ ko jox kenn dañ ko seetal ba pare ndax ñoo lay seetal mooy ndax xamuñu ba xam rab moo la tënk wala lan la te fi ne bari na góor ñoo xam ne mënuluñ seen soxna dara ndax damay wax ne jigéen toujours damay wax ne jigéen ñaari ñaari ñaari boor lay yëge jigéen ji yég ci biir ak jigéen ji yëg ci bitti bépp jigéen boo xam ne danga nga yëge ci biir kooku awra bu jot sëkk moom moo la arrangé bépp jigéen boo xam ne da nga ci kaw loo yor lu gàtt gàtt gàtt mën na la arrangé kon góor dëgg la tax ñuy wax góor dëgg mooy awra bu jot sëkk même awra bu gàtt sax mënut mënut mënut imam muy kuuñ mëtul imam waaw kon dafa am loo xam ne ci niñ koy nattee da koy ngëpp sa loxo ngëbaat ko mu des ci kaw awra moom soo ko nattee sa loxo bi nii nattaat ko mu des ci kaw lu toll nii nga xam ne awra awra awra bu jot na waaye lu ko matul rek awra dafa gàtt góor nag dafa am nu mu war a toll am awra bu jot sëkk mat sëkk lii nag farata la farata la ci ki nga xam ne dafa am jàngoro mu dem mu faju ji bépp feebar nag lii feebar la comme yeneen feebar yi dëgg la nekk na loo xam ne nag sujet tabu la mënu mën mënoo koo nekk di ko wax kenn ku nekk waaye da dem ci ki nga xam ne yaakaar nga ne mën na ko nga dem ci moom mu faj la waaye yi ñu ciy def nii yàlla suturaal nañu am nañ ci ay résultats yu dul budul benn du ñaare bu dee ci ki nga xam ne dafa néew doole ci wàllu kàttan kooku am na sunguf buñ koy jox boo xam ne soo ko jëfandikoo danga jot sa bopp lool jotin bu neex boo xam ne dana la sax mujj yéem waaw kii moom dañ ci am loo xam ne mayuk sunu borom la li ko def nag mooy dañ cee nangoo sonn xanaa xamoo ne nit ki lépp lu mu sonn rek dëgg dëgg dëgg dëgg faaw suñu borom defal ko ci ndam waaw. yàlla nag defal nañu ci ndam loo xam ne musuñ cee ñaanal nit ki mu ñëw ne sëñ bi la ma ñaanoon gisuma ko wallaahi xam nga la moo ci ëpp sëñ bi de li may diwoo dama waaye dama gis ne dafa yeex mi ngi ñëw waaye dafa yeex su yeexee nag damay damay pré euh, ñu koy ñu koy waxee damay damay damay damay insisté waat joxaat la beneen beneen pour nga jëfandikoo ko waaye saa boo ko jëfandikoo ci kàttanu yàlla ku mbaaxam da gis ndam loo xam ne dana la yéem ci kàttanu yàlla ak mbaaxam waaw. dama insisté waat joxaat la beneen beneen traitement ko waaye da gis ndam loo xam ne dana la yéem ci kàttanu allah macha allah ba tey loolu mu nekk ñu ñu ñu ñu bëgg a waxtaanee waat leneen loo xam ñor na ñor na nit ñi surtout ndaw ñi muy wërsëg képp koo gis même bu fekkee dafa ubbi bërëbu liggéeykaayam kaayam sax liggéeyam du demee noonu wala lu mu yóotu du ci jot wala lu mu jotit demin bi day gaaw loolu lépp ñu mën koo tabb ci wërsëg ndax bu fi nit ñëwee moom luy ubbi nit moom dañ koo doon luy ubbi nit nit koo xam ne dafa bëgg ubbeeku euh, ku tëj ku maanaam ku ubbeeku la daa tëju tëju nag day feeñ ci lépp fi ne baa xam ne nit sax mu ngi tàmbali dara di ci yëngatu mu yàqu kooku dafa tëju mën nga liggéey fi béréb di fa liggéey ñu dàq la dafa dafa tëju nit jàng na ba am ay kayitam te mënut a fexe ba liggéey fenn fu mu liggéey jóge fa kooku dafa tëju même baa xam nga ne jigéen bii sëy ci kër sax fu mu sëy ñu wàcc ko fa dafa tëju gis nga tëju ay façon yi façon yi façon yi façon yi façon la waaye ubbeeku nag mooy lépp mooy fatxu kooku moom euh, sunu borom subhanahu wa taala mi nga xam ne dara tëwu ko loolu moom dañ ci am yoo xam ne dañu koo jëlee ci suñu ay wayjur dem gëstu ji ci ay mag yoo xam ne ñii lii lañ leen xamee ndax kat euh, xam-xam moom saa boo ci doon ne li nga doon rek doyul da nga jóg nga dem gëstu ji waaye képp koo xam ne yi mel dal na ko mën nga am jaaro buñ la duñ la jox nga takk ko mënees na dafay sangat yooyu sangool waaye nag faw ñu xam kii lan mooy mbiram sa ñu xamee lan mooy mbiram ba pare ñu mën koo ñu mën koo dimbali fi ne xam nga am na ñoo xam ne sax <laughs> seen i waajur wala seeni i mag paasal nañ leen ñu dem ba tukki te mënuñoo fexe ba am dara dara dix ans vingt ans ñu def ko ci réew mi mënuñoo fexe ba tekki nga gis xale bu ndaw jóge fii am fa quatre ans tabax fi kër jënd oto takk fi jabar te yow mi ko jiitu woon di ay bàyyam mënoo fexe ba am loolu kon doomu aadama li gën mooy nit ki ak ku doon na ko jëmmam itteel ndax àdduna lenn rek moo fi nekk mooy doomu aadama te itam doomu aadama itam lu mu am moo ko may boppam ku baax ki daa wax ne kenn deful kenn dara kenn deful kenn defulul kenn dara lu waaye def boppam waaw man xamila saalihan fa li nafsihi wa man saa fa alayha ku def lu baax am lu baax ku dem safaan it ka saalika ku def lu baax it mooy nit ku jóg ngir ngir jóg ci sa jëmm am lépp adduna si nu nekk nii lenn nekku fi lu dul nit nit kooku itam lu mu mën a lu mu lu mu ñàkk moo ko xañ boppam ku ci góorgóorlu am dara ku ci yaafu say moroom raw la waaye ku ci fexe ba góorgóorlu ba sunu bunt nga fëgg ko fekk nu fa wala nga woon téléphone ñu jël la yàlla seeta na ko ne ñaanal sa borom te xam ne santal sa borom te xam ne sa aajo faju na ndax dama yàgg ñaan yàlla képp koo xam ne aajoom narta faju su ma woo bu ma jot laajal nag fi ne am na ci ñoo xam ne bañ ma dalee woo mënuñu fa xam ñaata yoon la man na maa toog nii nga toog ma toog sama téléphone sonné ma lànk bañ ko jël loolu xëy na suñu borom moo ko dogal ak foo mën a wootee ci àdduna da ngay woote woote ba sa ba sa téléphone dagg rek kenn du la jël lu ko def mooy dama yàgg ñaan yàlla ko ajum narta faju bu ma jot waaye saa bu sa ajo naroy am na ñoo xam ne 7 mois dañ may topp di ma ko ma jot wallahi ba benn jour rek ñu woo ñu ñu woo ma jot ma ma jël leen ñu ñu ñu ñu ne woo nañ la ba sonn mënuñ laa jot ma ne lu xëy na loolu yàlla dogal ma ndax dama ko yàgg ñaan sama borom xëy na bi ma la jotoon lu ma defalee doo ko gis waaye dama jàpp ne saa ba ma jotee rek yow moom waatal ne sa ajo faju na waxal alhamdulilah rabbil alamin waaw ndax man xam ma rek euh, ajo bu faju la waaw. Euh, ni fat yi ni fajkat yi bëree. Mhm. noonu la wutee. dafa am feebar boo xam dafa nekk ci ñun ñu ni moom nit ku ñuul ñoo ànd muy muy ndoxum siti mhm. nga gis nit koo xam dafiy da da ciy dem fu nekk mhm. tey dem ci tubaab bi du faju mu dem ci faju olof ñu du faju loolu ndax am nga ci ay garab yoo xam mën nga ko baaxee doomu aadama yi waaw ndoxum siti mi gis nga gis nga gis nga gis nga gis nga bouteille bii ñu koy wax euh, ndoxum kéemaan bouteille bii ñu koy wax ndoxum kéemaan bouteille la boo xam ne euh, képp koo xam ne ndoxum siti daf koo gaar ak siti bu mu mën a doon ak lu mu dëgër dëgër dëgër dëgër faj naa ci nit ku ne yàlla suturaal na ma ci faj naa ci nit ku ne dama ci am nag ñaanu kilifa gu mag duma tudd turam ndax daf ci ñëw euh, doomam jël si ko jox ko ci mu naan ko mu wool ma boppam ne ma dama laa bëgg gis ma dem fa mu gis ma ne ma ah, sëñ bi ay mbir ay mbir dëgg nga ci man de bi ma ko jëfandikoo moom nangam nangam nangam nangam nangam ma ne ko maa ngi koy siyaar baax di ñaan si yàlla suñu borom bi yàggal ko fi lool la waaye ñu ngi koy ñaanal yërmande suñu borom yàggal ko fi lool nag te wéral ko defal ko tawféex bu ma seetaan yi dana xam dana xam moom xam na man xam naa doomam xam na yàlla xam na waaw waaye gis nga euh, ndoxum siti mi bii moom ni ma ci suñu borom bi dafa la feex dafa yéeme lu ma ci liggéey lu mu bari bari bari bari du taxaw samay loxo lu ma ci am du taxaw parfois ma yor commande nit nit nit ñu bari seen xaalis te duñ gis te duñ gis garab li ko def mooy da ngay bëgg garab bi te garab bi manqué ndax parfois li ñuy dajale war koo togg war koo def ay litre a manqué su manqué nag parfois nit ñi dañ lay jox seen xaalis lu yàgg parfois am ñoo xam ne seen xaalis dina fi lu mat ñaari weer sama wàllu liggéey dañuy teey ba saa jotee ci seen seen seen garab waaw waaye képp koo xam ne sa yaram mi ngi dagg am ay picc muy xasen wala nga koo xam ne yaram dafa dem ba am ay ër wala yaram bi am am ay bouton wala lu mën a doon daf koy dindi même jigéen ji nga xam ne dafa toog toogaay bu yàgg sax te am doom te ndoxum si téye ko bu ko jëfandikoo ci kàttanu yàlla akum mbaaxam dana ko dindi moom garab bu efficace la te ful dara dafa lewet doom comme ndox mu ñuul ndax ndoxum kéemaan la waaw kii moom ci siti moom gisuma lu ko ci raw waaw macha allah. ci loolu ba tey ci kéemaan gi euh, dañoo faral tamit di gis même bu dul tële nga gis ñaari way dencante yoo xam ni ci seen biir néegu sëy ñoo ñoo ñoo ngi ciy am euh, bànneex bi ñu war a am. Mm-hmm. waaye doom duñ ko ci gis. Mm-hmm. ñuy dem fone am ñoo xam dañuy dem fu ne di ñaanlu ndax loolu da nga ciy yëngu ci nit koo xam dafa tële am doom wala suñu borom de mayagu ko bant. waa dama ne euh, képp koo xam ne musta am doom. nga xam ne dañuy wax ne jigéen bu musta am doom dañuy aj neem suñ ko ajee nag li fekk ajjeekuwul du am doom man nag gës ci sama gëstu yàlla dénk na ma ci loo xam ne bépp jigéen joo xam ne dafa musta am doom ma seetal ko gëstu ko laaj ko turam ak turu ñaari waay juram su ma eggalee ma laaj ko ma laaj ko turu borom këram mu jox ma ko ma def li may def ba gëstu ba gis ne moom dañoo aj ne am danaa ko defaral loo xam ne ci suufu lalam la koy def li may wax nit ñi xam nañ ko ñi ma xam xam nañu loolu ci man su ko defee ci suufu lalam tëdd ci lu ci tëdd ñetti weer jàpp juróom-ñaari weer su fekkee meeg boroom këram faw mu ëmb ci kàttanu yàlla ku ma ci ñaanal ëmbul na ñëw ma delloo ko li ma ko joxoon li ma joxoon képp koo xam ne dafa të am doom ku musul am doom laa wax de nekk ak boroom këram mu ñëw seet si ma mook borom këram ñu ànd wala moom kese mu ñëw mu jox ma turam ma turu ñaari waajuram ak turu borom këram ma def sama gëstu ba gis ne kii dañ dañ ko aj yàlla seede na ko ci kattan ak mbaaxam danaa ko aj ji mu am doom incha allahu rabbi bu doon ba am 50 ans mën naa feex mu am doom ci kattanu yàlla wallahi waaw bu doon koo xam ne nag mus dafa daan am doom ba pare mu taxaw nag bu boobaa kooku dañ koy defal traitement waaw ki am doom taxaw dañ koy defal traitement. waaye ki amul doom moom dañuy fexe mu am doom ci kàttanu yàlla waaw kooku moom <laughs> am na kooku dana suñu waxaa da ngay maye doom bi mayu ma de yàlla <laughs> yàllaay maye yàllaay maye yàllaay maye ndax luñ def itam lu ci mën a doon nañ ko sant yàlla ndax yàlla moo ne man man lam yaskuru naa sa laa yaskuru laa waaye nag yàlla moo ci mayam ndax lépp lu ñaan mu nangu rek yàlla la neex mënuñu dara mënuñu tus ndax suñu am nañ soxla yoo xam ne mënuñ mënuñu ko faj waaw gis naa fi ñu def fi efficacité hémorroïde hémorroïde nekk loo xam ni ñi nga xam dañuy liggéey ci bureau yi mhm. dañuy toog toog bu yàgg mhm. ñi nga xam dañoo nekk ci tag taximan yeeg ñi nga xam am na ñoo xam liggéeyu toog daal lañuy def mhm. hémorroïde sonal li donc bu dee ci wàllu hémorroïde bii moom dafa dafa dafa dafa efficace lool ci wàllu hémorroïde képp ko xam ne hémorroïde hémorroïde daf koo jàpp ak lu mu tar tar am na ci ñoo xam ne danañ mëntu ñoo toog man gis naa ko man gis naa ko ci dem bay dénkaane xam naa ne li may wax nii xëy na ay mbokkam euh, danañ ko xam demoon damay dénkaane soxnaam moo ñëw ci man wax ma ko ne ma euh, diw dey dama ko doon sang waaye damaa gis gannaaw ga doy waar lool ndax émorite mbaa xam nga ne day dem ba mu yàgg mu mujj génn def benn bul génn ci gannaaw saa bu nit demee toilette dootu dellu du sawar sax dem toilette day saf toilette waaye pour mu dem problème la. waa xam nga hémorroïde da day loo xam ne euh, bari na gàllankoor bu muy teg nit boo xam ne su ko xamoon dëgg-dëgg faj na ko bu yàgg lu gaaw ci faat doomu aadama la li nga wax léegi nag moo ci nekk rek ñi muy dal ñi ci ëpp nit lañ doon ñoo xam ne am na ci ñoo xam ne euh, ay liggéeykat la ñuy doon du ñu toog lu yàgg mooy ñu liggéey ci bureau yi. ak chauffeur yi ak yu demee noonu kasaalika fi ne bokk na ci nag ci li koy joxe toujours mooy yenn lekk yi am pat yi bokk na ci li li joxe hémorroïde waaw waaw waaw waaw bokk na ci hémorroïde fi mu ne ci ñu ëpp ci ñu muy dal nga xam ne ñoom la ëpp ci ñu muy gaaw a dal mooy nit ñoo xam ne dañuy dem toilette rek dem insé wu rek bàyyeeku maanaam nga dem ba saf toilette lool nga ñëw rek bàyyeeku rek ubbeeku en général loolu soo ko defee da ngay gis ne sa gannaaw dafay am problème loo tax nit da ngay teey def ndànk da boo defee ndànk li nga bëgg rek da ko am fi na am na ci ñoo xam ne imurit da leen di jàpp ñu dem ci duus ba dañuy dañuy onk ba sonn dara du génn loolu lépp imurit daf koy def imurit dafay war a lekk nga lekk ko du gaaw a rees waaw waaw defal attention waaw imurit dafay jàpp nit biir bi di jooy di yuuxu nga gis biiram dafay yuuxu bu baax nga gis biiram dafay yuuxu baax a baax loolu dafay am imurit dafa bari lu mu lu lu lu mën a yàq ci doomu aadama ci loo xam ne nit ki xëy na mën naam sax du ko xam waaw lii moom sunguf la bu ñuy naan ñett yoon nga koy jël ci jour bi waaye soo ko tàmbalee jël li ngay njëkk xamee ne baax na ci yow mooy da ngay dem toilette ndànk-ndànk di gis ne waaw day ubbi sa biir ngay dem toilette ndànk-ndànk boo doon dox di seere dootoo seere waaw loolu moo koy def ba pare nga gis biir jékki-jékki di juux di jooy hémorroïde moo koy def même biir boo xam ne dafay jékki rek gonflé wu hémorroïde moo koy def hémorroïde lu mën a yàq ci nit lu bari la même baa xam nga ni hémorroïde day dem ba fatt si dutu njurukaayu doomu aadama sax pour mu pour mu jur doom ci jigéen pour mu jur doom mu jafe même hémorroïde dafay jàpp góor mu dem ba néew doole ci wàllu kàttan nga gis ne day nekk ak soxnaam du ci man dara hémorroïde hémorroïde da koy def fi ne xale yu bari waxuma mag ñi de waaye xale yu bari dañu tële xale yu baree baree bari dañu tële mënatuñ dara dara dara dara ci jigéen waaw xamuñu xamuñu lan la hmm. xamuñu lan nit moom saa booy dox di dem hmm. nga dem ba gis lu la jaaxal dangay dem nga dem gëstu ji sa bopp xool lan moo xew dëgg-dëgg waaye boo toogee ne yëng bañ boole laak jigéen bañ boole laak sa nu ko ci waxee sa sa soxna jafe-jafe rek lay jur waaw fi mu ne sëy yu bari jeex na temps yee ci dama am dama amoon benn euh, procédure bu ma demoon tribunal am ku ñu fa téewoon ma dem fa di ko seeti ñu war ko àtte ma dem fa ma gis fa sëy yu bari yoo xam ne dañ ko jigéen ñoo ñëw demandé divorce man nag yàlla suturaal na ma euh, dama bari xame mu mm-hmm. fexe ba toog ak président tribunal bi ma waxtaan ak moom mu ne ma am nañ fi 500 dossiers bu yoo xam ne ñi ngi koy traité yoo xam ne ci divorce la jëm ma ne ko pour lan mu ne ma jigéen ñi ëpp dañu wax ne seen boroom kër yi mënalatuñ leen dara te loolu nag jar na divorce ndax lekk ak naan jigéen ñi dañ naan andiwuma ci kër gi kon donc góor ñi nañu gën a faju te gën a jox àq jigéen ñi ndax kat am na loo xam ne gàddul àq gàddul gàddul àq sa soxna la fexe xam nag jàngoro yi nga xam ne moo ne ci sa yaram nga fajlu ko li nga xam ne itam euh, xamuloo ko gis nga ci yow demal demal nga dem gëstu ji saa buñ la joxee dara itam war koo jëfandikoo nga traitement ku topp say traitement daal sa aajo dana faju incha allah rabbi uh-huh. lay jaajëfal bu baax Serigne Abdou Lahad Kimane di xamal ni kontaan nañ bu baax a baax ci waxtaan bi euh, di la di la wax lan ngay lan mooy nekk say kàddu say kàddu tëj. suñu kàddu daal mooy santaat yàlla suñu borom subhanahu wa moom mi ñi yombalal. ñu toog mën a yëkkati suñu kàddu bay jeexal ndax bu neexoon yàlla suñu kàddu du jóg ba ñu tàmbali bu neexoon yàlla kàddu yi du yegg te dogalam ñëwut ci noonu ñoo ngi koy santaat bu baax a baax di sant Serigne Touba di sant Cheikh Mouhamadul Mountakha ñaan ci yàlla su borom yàggal ko fi loolu te wéral ko ñaan ci yàlla màggal géenu dëgmal yàlla nañu ci dugg ak bisimillahi rahmaani rahim defe ko ni ko borom bi bëggee ci alhamdulilahi rabbil alamin di ñaan ci yàlla koo xam ne aajoom nar naa faju rek fu ma nekk na ma fa fekk képp koo xam ne aajoom narta faju maa ngi ñaan yàlla yàlla bu ma jot waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërë ngeen jëf mbokk yi Serigne Abdou Lahad Kémane moo ngi noonu ku ko bëgg fekk fekk ko Nord Foire Yoff Apix mën ngeen ko woo ci 70 856 37 38 wala 77 086 27 29 ñu ngi lay jaajëfal bu baax Cheikh Abdou Lahad